ci daaray e, muqaddamatul xidma di daayira boo xamee ne ñi ngi liggéey liggéeyal sëñ liggéey bu kawe ci fi mu gën a tànn muy jumaay jumaayam ji waxtu ne ñuy indi yu am solo di ko fi def di dundal koor gi ci xam-xam waaye di ko dundal ci joxe ay ndogu mel ne e, na ko sëñ Tuubaa daan defee ca njaarim loolu nag tax na taalibu ne war cee dugal alalam dugal ci ñaqam ndax kat istajibu lillahi wa rasuli ida daakum lima yuxiikum koo xamee ne dalaa woo ci yàlla dila ko defal ci fuleer kon euh, dafa mel ne nawet bu sebbi la euh, loo ci def rek fekk ko fa euh, moo tax nag ministre de l'intérieur doon ab taalibe ci kër Sëriñ Tuubaa kenn waru koo jiitu loxoom ci liggéey bi moo tax mu yabaloon ñu ñu indil ko addiye ji toll ci un million mu ngi koy xeeb te bëgg ko ànd ak yéen at mu ne mu koy yokk waxtu wu ne eh, ndax liggéey yi gën a eh, xam ne iftaaru saa'im li ci nekk ci ay yool waaye nga defal ko ci biir kër sa eh, waaye nga defal ko ci biir jumaay sëñ Touba loolu lu mu doonoon yool yool bi day gën a rëy waaye yéen ñi tax ba taalibe yëpp mën cee dugal seen loxo tax ba ñu mën cee amee yool boobu yéen lañu ñu war a sant yéen la ñu mën a gërëm kon eh, ci turu kilifa googu lañ fi ñëwee doon ko jottalil addiye yi mi ngi sàkku nag ngeen ñaanal ko baax a baax. li muy liggéeyal sëñ li muy liggéeyal réew mi eh, njiitam kilifaam dénk ko ko mu defar ko defar bu rafet ngeen ñaan tamit réew mi yàlla gën fee indi jàmm ak salaam rek ba ñëpp mën a def li leen war ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Soxna bu ñu ngi lay delloo nuyoo lu bari di la siyaara bu baax di la ndokkeel ci weeru tedd wi. Eh, di am mbégte itam ci jataawa jataayoowaat ak yow ci barab bii nga xam ne sa barab la ak liggéey bi nga xam ne dañ ko seq te bokk ko te waxtu wu nekk nga di ci def li la war lépp di ci joxe sa xam-xam di ci joxe sa temps di ci joxe say xalaat di joxe sa lépp kon ci yow la ñuy tàmbalee nuyoo bi tàmbale ci yow itam cant gi di nuyu kilifa gi nga xam ne moola la yebal di ministre de l'intérieur di Antoine Diome di koo xam ne moom ni nga ko waxee léegi taalibe la boo bokk ci yoon wi dëkkit ci dëkk bi euh, am yéene lool itam ci jëf ju baax ndax maa ngi fàttaliku rek yaakaar naa 2005 lay doon wala 2004 am na ay jamono ñu dugg fii ci kër Sëñ Saaliwu ngir di toppatoo gasoil bi jëm ci groupe bi ci jamono yooya fekk ko fi bu ànd ak ay bokki procureur am ñu doon siyaare ci sëriñ bi bi ñu sëñ Moussa Niang nuyoolee wax ko ne ko ñi ñoo yore jumaa ji groupe bi la gasoil bi jeex xam naa moom la ñuy wax si sëñ bi ndax booba sax dafa am mbokk euh, mbokkum taalibe moo xam ne moo ko yoroon xëy na mu xawoon a yéex a ñëw wala nangam ñu doon ci waxtaan ak sëñ euh, sëñ bi e, ngir ñu mën cee def loo xam dana mën a fàggandiku ba muy ñëw waaye gis nañ ca booba dafa daal ne loolu kat warut ci sëriñ bi te ñu ne fi daal di làmb poosam moom ci jëmmi boppam génne. daal di wax bokkam yi fi yam nekkaloon ne leen kenn ku nekk na génne ñu jënd gasoil boo boo xam ne dana mën a xaar ki ciy def ba mu ñëw waaye lii kon kooku Pastef yàgg nañ koo xam ci liggéey bi xëy na nag mën naa am xamuloon ni liggéey bi doxee dëgg-dëgg boo yàgg ba léegi waaye ko mel na ne tey bi mu xaw ba mu leeree ci boppam itam gis nañ ne waat na ci bu baax di ci taxaw bu baax a baax ñu di ko sant nag bu baax di ko gërëm di ko wax ne ko liggéey bi liggéey bu murid yëpp murid yëpp lañ ciy séentu yaakaar Sëñ Tuubaa ñu ngi ci séentu waaye liggéeyu jullit ñëpp la nag itam ñu ngi ciy séntu itam mbooleem jullit yëpp itam ak fu fu ñu mën a nekk ci àdduna bi euh, xanaa rek di la yóbbante ci moom di la wax ne moom it ginnaaw ci dëkk bi la rek di bokk ci waa dëkk bi di bokk ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi xam nañ ne ku ñàkk jot la waaye war na am benn bis nag mu ñëw doge si fi euh, ndax seet seet si liggéey bi itam gis ko ndax lu toll nii itam mu koy def ci am réew euh, kilifa réew ma war na ñoo xam nu mu toll nu mu demee dëgg-dëgg dëgg la sax président ci boppam mas na fee ñëw seet si ko waaye nag moom itam am na sa am na àq ci ñëw seet si ko ndax da cee bokk ay yoon yoon loolu moom ab yóbbante la bu lay yóbbante di ko jot li cat di ko jot li ngërëm di ko wax ne ko li mu yónnee defal nañ ko ko ci liggéey bi moom nag desu ko wax lu ñuy def ci sëñ Tuubaa nii lay demee wala naa lay demee ndax ci biir yoon wi la bokk te xam na ci lu bëree bëri kon daanaka dara jëru ko cee leeral dañ koy wax rek ne ko agsi na sant nañ ko gërëm nañ ko sant nañ la yow mi mu jaare ci yow itam ak euh, di la di di di di di di di ko ñaanal sun borom itam ci loolu nga wax mission bi ñu ko dénk te yaakaar tax ñu dénk ko sun borom jàppale ko ci ba mu mën koo def ci lépp sedd guy ànd ak jàmm ak tawfiq wax ne taxawaay yi nga am ci liggéey bi te wax la ko léegi ne la ñoo ko ñoo ko bokk te waxtu ñu la soxlaa ci sa xam-xam ak sa sa temps ak sa conseil yëpp nga def nga mën koo def ci liggéey bi loolu itam ñu ngi koy seereel ñëpp ndax at mu jot at wala boog at yu bari xëy na léeg-léeg ñu noppal la ngir xataayu jamono ak coono yu bari ak seet andi keneen itam mu jël wàllam waaye wax sonal nañ la lool ci waxtaan yi ci koor gi ci màggal gi ci yëpp waaye nag loolu lépp xam gi nga xam ne sa alal la te nit ku nekk alalam itam moo ko war a sàmm loolu tax na nga gën cee sawar lool waaye nag cawarte gi gépp nag du tee ñun ñu ngi ko àndal ñu seere ko sant la ci gërëm la ci bu baax a baax a baax di la seere li ko ni ko Sèye Blanc waxee woon démb soxna si ak njabootam soxna Waalo ak njabootam. ndax ñoom ñëpp itam wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi euh, te sëñ Mourtada ak soxna si ak ñëpp dal yéen ñëpp kenn ku nekk wax dëgg yàlla seen taxawaay ba ci sëñ Maam Mor mi seen mag yéen ñëpp kenn ku nekk la la nam ci war a jàppee rek mi ngi koy jàppee ci liggéey bi loolu itam ak cant la ndax li sëñ Blaat waxoon démb rek mbir mi sax Saalifu Mbàkke moo ko samp sampub sëñ Saaliw nag xam nañ ne yéen du ngeen du ngeen du ngeen du du ngeen man lu may jàpp ca mu gën a dëgër du ngeen man lu may itam suuxat ko mu sax te jab bi te loolu nag mooy war a goor murit yëpp itam nag mooy war a goor murit yëpp kon ñu leen ci sant bu baax en tant que murit waaye di leen sant it en tant sët sëñ bi yoo xam ne yëg ngeen ne lii seen sampub am la ngeen jàpp ci ngir mu mën a woy jërë ngeen jëf